autorités sénégalais yi du ñu def loolu bon du ñu def loolu benn xam nga nettal naa la benn hmm. te ba waxuloo ko lan laa la nettali ci Pape Alé Niang. Pape Alé buñ koy buñ koy jéem a empoisonné musuma ko wax buñ koy jéem a empoisonné. waaw waaw musoo ko wax. yow raconté ko Pape Alé Niang dégg parce que man musuma wax ak Pape Alé Niang musu ñu seq salaamaaleykum léegi raconté ko fii Pape Alé Niang dégg direct. kooku moo ëpp chance ci Sénégal pourquoi. mais hmm. nga kooku euh, bi lañ ko fekk collé ak deux STV restaurant bi léegi l' assurance s'appelle dafa collé woon ak benn assurance hmm. mais jour bi je me répète je me répète encore hmm. jour biñ ko koy def euh, la pauvre y avait Papalé y avait un de ses amis Et il y avait qui À oui. côté assis. Il y avait à côté. Et il y avait Mbayank. Keps Thiam et Mbayank ñoom ñu toog foofu quoi. ñoo toogoon ci wetam xamuñu ñoom nu mu demee seen yoon nekku hmm. seen yoon nekku ci. le problème c'est que Pape table bi mu toog comme te ñooñu ko yeb kenn ñoom ci ñaari jigéen yi lekk kenn ki manqué verre jël verre u Pape table Pape Alé y trois verres or il devait y avoir mu jël verre bu bon bi la jël jox ko mbayang tayu ko daf ko dem dimbali rek mbayang nag moo naan verre boobu mbayang boobu nekk deux S. Euh, mbayang dafa bëggoon naan mu ne Pape Alé Niang jottali ma verre Pape Alé Niang jël verre ba ndakate boobu lañ empoisonné. Eh, eh, eh, Pape Pape Pape Alé jottaliwul bi. képp sa moo jël verre bi jox ko ko xamul xamul xamul lu mu demee fekk. wala wut jiitu. képp sa caam moo jël verre bi mbayang moo soxla woon naan lan la bëggoon naan. waaw waaw non dañ fa tegoon mu te moom mu te def si jël verre xaaral jël ci verre Pape Alé jël verre bi jox ko ko mbéy nag la la pauvre ndeysaan xamul nu mu demee képp sa xamul nu mu demee moo naan verre boobu. kooku moo naan verre boobu. Hmm? mbéy moo ko naan moo naanee ba léegi laaj ko ndax wér na moo moo jël verre boobu utilisé ko te verre boobu il en avait pas beaucoup parce que ndaw si dem servi dafa gàtt sa waay. mais dégg naa mbéy boobu dafa feebar de. mbéy boobu elle est gravement malade. yàgg wax kay de yàgg wax nga ma ko de lii musuma ko raconté nag. tout Souleymane Dia day fontu. kon Pape Alé Niang gars yi dañ ko bëggoon moo mujjee naan verre ba. moom mooy moom mooy. Hmm, hmm. tey père macha allah quoi man man man xam naa la xam nga man xam naa la gis naa si photo gis naa sa vidéo gis naa lépp lépp lépp xam naa ne yaa ngi ci au cœur du système. donc loolu moo tax boo boo demee ba may wax loolu ma may wax parce que xam naa carrément ki nga doon ñoom nag dañ laa xamul moo tax bu ma ñëwee ci la ma wax wax leen ko ñenn ñi di hésité ñu waa APR di ci profité naa waaye génneel li génneel nangam pour mais dañ laa xamul yow ñoom xamuñu la ñoom dañoo yàqule da ngaa rëcc ci ñoom da ngaa rëcc ci ñoom ñëw di ma waxal. ma yeewoo Basir hmm. biir kenn mënu ma xalaat. Hmm. te kenn ma xalaat bu dee

yi nekk y' a yoo xam ne moom foofu lay déglu y' a les càkk yi y' a ça y' a les ñu ngi la foofu ñoom ñoom seen biir kër bu ñëw ils vont aller travailler takk ay or takk des trucs comme le Sénégalais bi limité ku ma leer saaga tax ci laa le Sénégal bu ñu yeewoo dinañ xam ne gis nga ñii ñun ñii ñun ñii ñun te relais yi ñooy gérer Sénégal. dëgg la de Sénégal fatwa la dëgg la père dégg naa loolu de depuis temps Senghor yéen a fi yéen Sénégal ba léegi doo leen bougé mukk mukk mukk aw nga ñaan xam ne Philippe Senghor Philippe Senghor le juge buntu 不解脱了，这样的人人人人人人黑啊，一上黑啊，跟水分，咱呃那个点咱不能过去，把这个马里给他把骨肉放，我是马里亚人，我今天刚是马里骨肉肌肉，今天马里亚人，我那个。 ഒരു അവര് c'est le, c'est le, ne va pas chercher le journal pour faire. de ce débat, que de nous savons que ça fait euh, son ou son action. Mais nous, beaucoup de délais. Donc, il dit, il est, il est là pour gagner. Dites le sondage, il y a rien. Si mon ami, si mon ami, il est une bu defee dëkk bi sondage parce que saa nouvelle boîte arrêté na lépp mais boîte bi yëpp boîte sondage la dafa nar ay sondage mais bu doxee réellement mun naa man man man man man man la ñuy yor ñoom la ñuy yor dinaa la wax écart bi Ousmane am ak suñu àndal présidentiel yi c' pas Macky Sall c' est que le choix est le dialogue de finance c' est Amadou Hott et l' autre le fils de l' ancien de mon ancien patron ñett ñooñu la ñu xool. waaw ñetti noonu ci ñetti noonu mais Yora Fall Macky Sall Yora Fall ne loolu je te dis wax naa la ko mais père loolu day dépendre ci volonté populaire bi rek loolu loolu moom day dépendre ci volonté populaire bi. père non loolu seen programme la yéen mais day dépendre ci volonté populaire bu populaire population bëggul loolu du am buñ ko bëggee day am ça dépend ci ñoom. non bayağı bir bir France <coughs> ak te yëpp dinañ ko këpp dinañ ko këpp pour en majorité lii ok le président va arriver et on va régler le on va régler le Sénégal lii après de Macron parce que Macron va passer il va passer loolu leer mais sondage yi le gars là Ousmane Sonko boo la fee ñaata pour cent lay dajale présidentielle léegi si tout ça passe bien deux mille deux mille vingt quatre léegi si tout ça passe bien sondage bi ñaata la. ah. ah. normalement. ok. ndëgg euh, euh, sërëx yi ñu ko daan tegal loolu c'est fini ay rey Ousmane Sonko c'est fini yooyu amul j'ai entendu chose dañ ko bëgg rey kenn nga ko rey Ousmane Sonko

samtidig Sonko boys génn ñaar ngay génn ñeneen ñëpp toog seen biir kër jàpp portable xool li xew ci télé bi nga xool nga toog nga nekk ak sa biir ñu pour cent yi ñan kan moo koy am. kon mooy mooy président kon mooy doon président. mais xoolal ki koy booleel ak la bagage yi ñoo bëri bagage yi nar a jógee Bagaasii xajul ci télé Sénégal yi comme ay bagaas yooyu xajul mais bu dee Ousmane Sonko normalement am na 67 pour cent moom mooy gagné na mais lan bay bagages yi ñëw ñëw bagages yi ñëw lan. attends waaw. allo waaw yi ñëw maanaam. bagages dootuñu liggéey ndax Sénégal day bëri xaalis li naan a daanu li naan a daanu Sénégal ci xaalis. Hmm. parce que les Noirs vont récupérer le fort li ñu. kon yow xam nga Boubacar Camara bi nekk beneen non de donc dégg nga Boubacar Camara bi nekk ci pooru beneen Togo xof bi ñoom defe naa yi ñëpp a dellu si Bolloré au revoir Bolloré rek laa yoroon ak waa waa TFM la télé la TFM wuuxoo et déjà wuuxoo ñoo ñëw géwoon ña fa nekk <laughs> allah non moom kenn du préparé parce que doo yàlla doo leen yenantu kenn du préparé ñu ngi toog di leen xaar indi leen indi leen jinne yi d'accord bañ toll bañ toll bañ toll ci loolu loolu dañ ciy toll kenn du préparé ñi ñu ngi toog di leen xaar ñëw leen ñëw leen dama ne. waaw encore wan jamono lañ toll. Hmm. dañu toll benn jamono boo xam ne il faut de dinañ ci xam dara. loolu la te gis nga population gis nga population. Hmm. Sénégal yi ñu dugg. Hmm. on dit pas que ñu def xeex ñu def ko affaire yi di reyante déedéet. bu ñu bëggee benn parti ñu dëkk bi dañ doon jënd carte bu parti wootee nañu dem bu élection bi dafa la législative dalaloo dina la tegal le nombre de la vie regarde le gars là le lycée de Fatick Balla Gaye ñaata contrat la am fii nii te vëree ko ko et il a pris l'argent loolu c'est prévu coupe du monde bi dañoo dina loolu c'est bon mois de novembre bi sànq waxul Sénégal affaire bu dugg a changé affaire weeru koor bi ñëwaat affaire korite weneen korite ñëwaat affaire natt weneen wàggal ñëwaat affaire deux mille quatre et sept ko maanaam daal pré préparé nañ seen seen programme mu nalawalaate quoi nalawalaate ak caaxaan. am na loo am na loo liiru ci phase sept agenda bi phase sept alors liir ko. tout à fait li li ci raxoon oh, il fallait couper la tête de Cheikh Omar te avec yow Cheikh Omar balaa nga koy jàpp balaa ngaa la xam nga koy jàpp rafet na. tey boo xoolee dugal ko def live contre contre li juge ñaar de waxuma la ko. père loolu yëpp loolu yëpp seen programme la rek léegi nag yàlla dafa am programme gis nga na ngeen amoon programme nii Ablaye Wade moo leen ëppoon programme fuuf xoolal bu yàlla di jëlee bi da ko fee jëlee mais c'est ça. Je vais te dire une chose. Hmm. Je si c'était un ingrat wala une mauvaise personne, heure yu yor affaire Macky Sall, même bi ce waaw <clears throat> pour wala a nouvelle bu neexoon ëllëgati la il a pas voulu il a pas voulu donc la koy wax rek doole bi léegi moom la ñu dansé wala ñu ngi gérer dëkk bi il a pas voulu et il croyait que euh, l'autre c'était un gentleman te gentleman nag tuuti mais day neex nag day neex nag moom moom saaga yi mer yi la war a baax saaga yi ak mer yi il doit arrêter ça. kan Macky Sall ah c'est waaw c' est pas un mauvais type day xam ndax mais non mais non mënul def loolu doo da ngaa xaar xaar xaar ma expliqué la dama ne loolu lépp bu mu amee. waxuma mu weer ay nitam mais lan moo tax munu ko arrêté te audio yi audio am na fi ay audio am na fi am na audio bu feeñ mais lan moo tax boobu ba léegi ñuy insisté moom mu nekk président jiite ñëpp. monsieur Morgan. waaw. xam yow da nga bokk ci lu Sénégalais qui connaissent pas c'est quoi état maa la ko rek. boo xamoon loolu mooy un état moo tax Sénégalais yi dañuy dem di dugg ci biir état bi di xool même appel d'offre wala ñoo ko vérifié xanaa ko loolu état état du dellu ginnaaw. Mm. d'accord du dellu ginnaaw da ngay xam amul teewaayu pare nga def tekk. Mm. lu tax ñu classifié du du ci mètre si te xam nu mu demee ñu ñëpp xam nu mu demee. Mm. xam ñu ko def. waaw père euh, père nan nga nan nga def ba am audio yow audio yi nga yor euh, nan nga def ba am audio euh, it's it's simple it's simple. ah waaw mais noo ko amee lay laaj ñu <laughs> ah ok doo wax doo wax noo amee audio yi ah. la yéen jox jox am iPhone yow nga waay ko soddu foofu laay la baat ko wax ku ci bëgg génn day bëgg waaye doo ko bëgg. waaw léegi lan léegi problème bi mooy lan moo tax audio yi mel ni yàlla audio yi mel ni yàlla quoi audio yoo xam ni moment bii dafa jot ah, ah, xaaral xaaral xaaral mu posé la question dafa jot ñu leeralal. ay nit ñu nga téye audio ñu téye audio nga ne non bu kenn joxe audio comme si ñun dañuy wut xaw dañuy wut xaalis wala dañuy jéem a ngand ngand lu wala lan moo lan moo tax audio yi mel ni yàlla buy jógee ci asamaan. Hmm. Euh, je vais te dire une chose. Hmm. je vais te dire une chose. Hmm. si vous voulez vraiment calmer les choses ah bi ñu yëkkal yëkkal bi ñu yëkkal bu ko parce que audio yi pas yu ma xamoon nañ ne que audio yi. avant Adji Sarr bi ñëw audio yi waroon na génn audio yi waroon na génn mais ni ñu doxalee la léegi woo ko doxalee le gars yi on va l'affluider donc voilà Ousmane Sonko dañ koy affluider. non kenn mënul loolu moom seen programme la père Ousmane Sonko est intouchable loolu moom bu leen sax ay ay on va l'affaiblir seen xalaat la rek dama ne mais Ousmane Sonko ngi nii laal leen ko. père Ousmane Sonko ngi nii na ko gars yi di ngeen xam ba xam ba xam ay audio moo ko wala wala wala peuple bee ko fi téye dem na laal ko. je je je je je je vais ma la xam du ma def lépp euh, euh, euh, foo ko mën a fàtte moo ko jëlee mais xam nga nit boo koy jàpp di ko rëbb di ko rëbb di ko rëbb fi nga doon un Sénégalais. yàlla di la wat saway boo demul jéggul dee léegi léegi lan moo tax audio yi mel ni chantage ak popula léegi père lan moo tax audio yi doon chantage entre yéen yow mi ko euh, génne wala yéen ñu ko yor ak ak ak population bi quoi population bi nga xam ne dañu soxla dëgg ko lan moo tax ngeen jël audio yi def ko chantage di leen ko chantage quoi mel ni ay audio yoo xam ne yàlla moo ko dama ne alxuraan moo gën a diis audio yi père xaaral père xaaral alxuraan moo gën a diis audio yi te yàlla da koo wàcce kon audio yi mënu fee ñanga ñang ñang te sénégalais yoo xam nga ne audio yi bu génnoon même bu doon explosé tam tous Macky Sall dara du ko fa jëlee foofu foofu mu toog noonu te yoo xam ne li amoon nii nii nii nii nii du amaat ci ay ay audio donc lan moo tax ngeen di chantage population bi ci ay audio non bul génnee ku ne di téye bu ko jéem a ñot lan moo tax. à le porte deux fois ou trois fois. Je parler de M. Je vais te parler de M. Nias. C'était son rôle de marabout. Moi, loolu. Personne n'a été. daf leen te yow xam nga li nga yoroon déjà nga doon a taxaw. daf leen mosal pour lu wax li leen yor naa. mais yooyu mosalee ba pare le problème c'est que xol bi ci côté patriotisme moo ñëw. waxoon na yor naa xaar waxoon ñu ne de fàttali kële rek mais affaire affaire maraw yi ci la ñëw doole ji ñëw man xaw ma lan la ji ci audio bu njëkk bi xaw ma lan la ji ci woon parce que avant audio bi bëgg na waxtaan ak ñoom mais ils l'ont pas pris erreur la ñuy def ko demoon la ay cuune lañ ndax bu newoon wax ak moom wax nga dëgg yëpp audio bi du génn dañuy seetlu lépp ba fi ne nii da ngaa la porte de sortie li ñu on est la quoi porte de sortie li ñu ñun ñëpp. léegi moom ci côté laa la affaire yi moom côté Fatick bi la ko jàpp série pression bi mu moom génn na ci MC génn na ci garaawul MC ci. am na pression am na lépp. ok mais man man nga ñëw la. waaw. mais mais amul sens man père wax naa la ko ne la sa audio yi effacé ko moo gën parce que amul lu ma sens. man audio yi dama yaakaar dama ko jox pour ma balancer mais bu fekkee danga may jox audio ay non xaaral ma may maa ngi ñëw di wax gars yi ne dañuy soxla bismillah xam nga audio yi man ci sama bopp xaaral na ma di problème mais heureusement que seen patron boo xam ne il est extraordinaire il est extraordinaire parce que li ma gën a dugal mënoon naa compter audio yi ay rox yu kontaan wala jékki-jékki ay wum ba wala fàttoon mais man audio maa seet yow a sonal parce que audio maa seet yow ci yoru ko mais audio maa seet bu ko sama patron fu ko déglu ci après li ngay wax ko déglu mais li nga déglu nga xam ko yor ko ma yor ko nga koy ko génne noonu yaa ko génnee audio moom audio audio audio kenn man man werante wu ma ni audio am na parce que jox nga ma audio déglu naa sama nopp yi audio Maam Sène ak Adji Sarr déglu naa audio yu MC Baye parce que ku MC Mbaye euh, Baye parce que boo déglu li may wax nii ku dégluwul audio munu ko créer yaa ngi dégg kon damaa déglu audio lu lañ ma raconté maa déglu sama nopp yii kenn mënul raconté lu newul ci audio mënu ma ñëw def live du wax leen ni ci audio nit ñoom ñaar seen waxtaan kon dafa déglu naa audio man man déglu naa audio yàlla rek moo tax may wax damaa woor déglu naa audio léegi mais père lu wa la ma bëgg nga expliquer ma lan moo tax ojo yi nekk chantage lan la on cherche quoi da ngeen bëgg a chantage Macky am ci ay milliards wala population ngeen di chantage wala. on est en guerre comme ni ko waxee